bis la boo xam ne njabatu sëñ bi ñoo ko moom euh, ndax sëriñ bi moom euh, ci ndigalul sëñ Muntaxa sëñ Ahmadou Mokhtar mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Moustapha ci sëñ Muntaxa la njëkk a yónnee laaj ko ci ndigal ndax loolu itam mooy dalilu yoon wi mooy laaj ndigal ci looy def lu nekk ndax ndax la tafalu cheyan bi xëyri isni fal isnu shartun fi xabuli sha'ni bañ fa demee itam sëñ Muntaxa rafetlu ko lool waxit ne wax ne na ngeen wax señ bi ne ko fas na ko yene and ak mom bañ fa jógee nak lañu gis ne kon jaadu na nak ñu tok waxtaan xol dal bis bobu nak, lañ ko wara mëna jëmmalé jëmmal gi nak moo di rek señ bi ci dëkkam bi mu gënon na bëgg té suñ borom nat ko ci lool nak ba sax bu san tukki gis nañ ci mbindam fo xamné ne eh, fu mu tudde Touba ci bopam la koy laaf ilahi ila Touba ya khutni wa salliman wujud bimtinanin sama wal tumini tirba yassir ruju'i li tuba wahmini Wahini adal wara wal wal tibli sama iskana yoy yep da don woné rek né sa yu fi ñibsé lim bëgg tuba melni ak nim fi bëgg nekké señ bi nak mom ay mbiram ñu bari wax nañ ci ñu bari bind nañ ci ñu bari léral nañ ci ak njabotam nak ngir woné nak né sëriñ bi nag bi mu liggéeyee sunu borom yàlla ak euh, bi lim lim ko lim lim leen liggéeyal ba jóge fi bàyyi na fi ñu ko mat ñoo xam ne yaafu suñ ndax li nu bëgg a fàttaliku rek mooy bi fi sëñ bi jógee ba léegi téeméeri at yooyu njaboot gi mu fi bàyyi kenn ku ci nekk la nga taxawee ci wàllu xam-xam ci wàllu environnement ci wàllu économie ci wàllu social ak ci wàllu benn jullit ñi muy loo xam ne ay thèmes yu wuute la ñu gisit ne loolu lépp na xajut ci benn bisu màggal yi kon jaadu na ñu xalaat nuñ ko yaatale ci réew mi ak bitim réew loolu nag moo tax ñu xalaat ne le 12 wala le traise dañ koy ubbee Masalik le 12 juillet bi ñu jëm wala le 13 dañ koy ubbee Masalik def fa ay waxtaan borom xam-xam yi nga xam ne itam ñoo nekk ci yoon wi ñoom lañ bëgg ñu def ko waxtaan du duñ ko dëkkale Daaru Xudus duñ ko dëkkale guy min duñ ko dëkkale fenn hmm. fépp foo xam ne borom xam-xam nekk na fi te ñu jàpp ne war na caa mën a indi contribution ba li nu bëgg a wone ci liggéeyub sëriñ bi ak njabootam ñu ñu wone ko ku mën a doon danañ danañ la ci boole. foofu la ñuy defee cérémonie d'ouverture bi waxtaan fa itam ci sëñ ci ci ci ci ci bi sëñ bi ñibbisee Touba ak léegi njaboot gi mu fi bàyyi liñ fi liggéey ci xam-xam hmm. te loolu yaatoo yaatu la. ndax yemut rek ci biir réew mi waaye ba ca bitim réew ndax kër sëñ Tuubaa yi ci bitim réew yëpp ña nga fay jàngale ña nga fay numutati kon njàngaleem sëñ moom yëmut cib dëkk yëmut cim réew weesu na continent waaye àdduna sëpp la daj loolu bëgg nañ ko waxtaane waaye bëgg nañoo waxtaane itam bu ñu fa jógee ci le 12 le 13 le 15 bëgg nañoo dem Louga waxtaane fa ci njabootuk sëñ bi ci téeméeri at yi liñ fi liggéey ci lu ñu mën a wax wala lu mën a tënk ci ni ñu benn la jullit ñi ñu bëggee jullit yu doon benn ànd di dimbalante di jàppalante te yàlla rek tax loolu Louga lañ ko bëgg a defee suñ fa jógee itam ci ñaar fukki fan ci mois de juillet boobu lañ ko bëgg a tëjee njaareem lañ ko bëgg a tëjee njaareem waxtaan fa itam ci fukki at ak juróom mbenn yi sëñ bi nekk njaareem ñu waxtaan ca waaye waxtaan ci itam wam sasin mooy xutba bi nga xam ne moom la sëñ bi mujj def ci mbooloo ak tamit indi giñ ko indi ci dëkk bi ak indi giñ ko indi ci dëkk bi bi mu fi daataan ñëw ni Touba mel ak bi mu fi ñëwee li ko ci Touba yooyu daal mooy euh, mooy mooy tam yi nga xam ne bokk na ci ñu jàpp ne warees na ko waxtaanee ci bis yooyu du tee nag bu ñu màggalee màggalu euh, màggal gi muy muy 19 Muharram ba ca suba sa di fukki fan yi moom boobu it bëgg nañ ko ba nit bëgg nañoo tënk ci benn cérémonie religieuse maanaam li nga xam ne moom la ñu waxtaanee ca Louga waxtaanee ko Ndakaaru waxtaanee ko euh, Njaareem ñu boole ko ci bis bi ndax bi ci ci programme bi ndax lépp lu mën a nekk la euh, formé na ne ay ay commission yoo xam ne moo jëm ci wàllu commission culturelle maanaam wàllu commission coordination sëñ Cheikh Aziz mi moo ko jiite jiite ànd ci ak sëñ Ousmane ak sëñ Sidi ak sëñ Cheikh coro euh, ak ñi ñu ci àndal ñëpp euh, commission culturelle sëñ Modou Bara mais ñu moo ko jiite sëñ Mbacke Abdourahmane ak borom xam-xam yooyu yëpp sëñ Cheikh ñang moom Euh, moom moom Alaaji Mourou Mamoun ak boroom xam-xam yi ci yoon wi yëpp ci lañ bokk ak communication sëñ Cheikh Abdou Lahat moom sëñ Cheikh Mbacké sëñ Cheikh Abdou Bali moo ko jiite euh, ak commission yoo xam ne ñooy toppatoo lépp looy tax ñooñu li ñu bëgg la koy yéwénal ci wàllu am koom euh, loolu lépp daal taxawal nañ ko ñu ñu jàpp ne itam war nañ caa mën a bokk te bokk ci yoon wi wala ñu jàpp ne war nañ caa mën a indi seen contribution loolu itam lu lu ubbeeku la loolu daal ci tënk moo doon modon solos ñew gi modon solos ñew gi di ci déglu tam nak di ci déglu tam nak seen seen xalaat ak seen nisar ak ni ni ngeen ko gisee discours yañ fay def ak yépp dañoo japp ne du luñuy bayé bàyyee kenn moom discours yépp dañ koy dañ koy wax ay borom xam-xam ci waxtaan teunk ko euh, bindu ko ci arab bindu ko ci wolof bindu ko ci ci nasaran fexé ba ba tassaré ko waaye lañ cay dolli itam mooy sëñ Mourou Moussa bi muy woote màggal gi ci bisu màggal gi dafa am nu mu ko daan defee mooy ci biir jumaa ji dafa daan jàng lu ñaar fukk kaamil ak juróom-ñett yoo xam ne ci ñeenti koñi barab bi dafa am maanaam ñaar fukki kaamil kaamil ak juróom-ñett doon yoo xam ne kenn ku ne boo ubbee sab kaamil tàmbali bismillah rahmaan rahim minal jinnati wan naasi nga ngay numtati ci ñeenti ci ci mihrab bi ak ñeenti koñi jumaa ji ak ñeenti ko koñi barab bi ak jës boog mooy boog mu xadimaat loolu lépp fas nañ ko yéene def na ko sëñ Mourou Moussa daan defee Euh, fas nañ ko yéene def xatmu bu it xatmu bu it bëggoon nañ euh, kilifa yu bari teewe ko ngir jëmmal rek noonee ko sëñ Modou daan defee euh, ndax mu mu lam ca jublu te lépp rek di liggéeyal sëriñ bi ak am ngërëmam ñu ñu mën caa ñu mën ñu mën caa dajeeg moom loolu daal sëñ bi mooy kàddu yi ñoo ngi sant bu baax nag ci taxawaay bi dafa mel ne fekkoon fekkoon ngeen nu ci ci ay xalaat. ba Bachirou mi sax man na ci seere <coughs> yaakaar naa gut fukki fan ak juróom ma woo di ci wax ak mom mune ma ñingi ci <laughs> ba waxuma won fuñ ci toll ndax gis na rek lu mel nii moom am na te du wala bu amat suñu sët la fi fekk témirat mom da yombut té muy symbole bo xamné mais ci sukkandiku ba wat señ bi wat liggéeyub señ bi tay taxaw seetlu it dafa jot jàpp naa ne defalu sëñ bi lu gën a rëy wone ab liggéeyam te bis bii nag yeyoo na ko ndax damay jàpp ne bis boo xam ne sangam bu tedd ba nga xam ne moom la gën a bëgg ci lépp ak ci ñëpp bis boobee la taqoog moom te du tàggoog moom nag benn yoon ndax xëy na daana ko gis-gis yu jege. mu di ko gane si di am moom ay fan gis ko yomb lool waaye nag taqoog moom bay benn ba duñ tàggoot si nag kero la ko am nga xam ñooy bokk fañ dëkk te loolu moom jàpp naa ne moo gën lu mën a am te bis boobu la ko kon jàpp naa ne bis bu rëy ci moom la muy bis boo xam ne man dama am tawfeex yi laajal ko sama bopp suñ son bu mu nettali ma lépp ca tàmbali ba ba jeexe mu te moom daa bokk ñi nga xam ne day am marjan bu wér dana laaj naa ko Mad Lamin Diop noonu la ko wax laaj naa ko Mad Lamin Diop mu nettali ma ko daal tàmbali nag nettali ba fa mu tàmbalee ba yem xam naa loolu mu doxaj fii dama koy junj noonu rek <laughs> waaye li ci am solo dëgg rek mooy seen tànk yi moom damay tàmbali si am sa yaakaar naa loolu bëgg na ci li ngeen di dox di ko dox ci njaboot gi di bennale ak yaatal ko jàpp naa ne moom ma ko doon woote dana ci bëgg lool. jàmbaar nag day bëgg koo kañ ak koo bakk te day jàmbaar kon bis bi bu ñëwee ñu woon ko ne la sëñ bi bëggoon yaa ko defal te ci bis bi nga ko defal loolu it daf koy mat lool ndax moom sëñ bi daf ko waxoon lu wér-wér. Modou mustafa ba ma noppee gis na nga fexe ba li tubaab yi bëgg ci man buñ ko am na nga ba yóbbu ma Touba boo ko defee de wàcc ngeen wàcc wàcc ngeen yéen ñëpp maa ci des li ngeen bëgg lépp da ngeen ko am waaye bu ngeen sàgganee ba amut dey man duma wàññi dara waaye li ngeen bëggoon lépp ñàkk ngeen ko tudd ngeen ko <laughs> kon nag gannaaw ndimbalul yàlla ci xelam mu rafet stratégie ba mu teg ak matuwaay yu jumtuwaay matuwaay yu tubaab bi jëloon mu fexe ba jéggi leen ba def li sëñ bi bëgg loolu ndamul yoonu murit wépp la te waxtu wu ne dañ ko war di ko loolu nag bu fekkee dem nañ ba ma téeméeri at maa ngi wax Bachirou Kero ne ko xanaa yeex gee waaj waaye buñ ko waajoon lu jegee juróom benn weer wala at jàpp naa ne addina sëppee àndandoo di ko màggal te jàpp naa lu ci xajit war nañ ko ci xajale taalibe yi nekk bitim réew fu kër sëñ Touba ne jàpp naa ne war ngaa yëg ne téeméeri ati sëñ ci Touba ñëw na te loolu nag bis ba buuroo ko yemaleeg bis bu ko doonut war nga am loo yëg ci sa yaram xam ne bis bii la sëñ bi dëkki ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam bis bii lañ ko mujj gis ci zaahir bi la am lam bëggoon loolu nag yaakaar naa lim mën a jur bari na ci njariñul yoon wi ak biti yoon wi sax ndax ñi umpale sëriñ bi sëriñ bi umpale ko rek moo am waaye kenn bañu ko kuñ ko won niñ la ko war a wane nga nangul ko ndax moo mel noonu moo tax ma jàppoon ne hmm, tàmbalee ko ci sëriñ bi ci boppam ba keroog muy ñëw Tuuba tënk léppam boo xam ne sax du doon du doon du doon du doon ak yaatal waaye liñ mënta ñàkk xam te xam ko am njariñ te umpule ko gënut loolu lépp ñu xamal ko ñi ko xamutoon ci biir yoon wi ak biti yoon wi ndax buñ ko xamee dana leen amal njëriñ boole ca gannaaw sëriñ bi taxawaay sëñ Muudu taxaw ak i rakkam taxaw bi mu taxaw ci indi sëñ bi loolu mooy ndam di jëkk ci ndami sëñ Muudu waaw ak firaay bi saxaar gi taxaw liggéey jumaa ji ba mu taxaw foofu mu jànkonte ak coono yoo xam ne bu doon jàmbaar du dem mu yooyu yëpp ñu war ko wane wanin wu leer ak ni mu ànde woon ak rakam yi Cheikh Mouhamadul Fadil ak rakam yëpp àndin wu rafet ak taxaw rakam yi nga xam ne booba euh, mat nañoo taxaw ci zahir mu taxaw leen taxawaay bu mat sëkk yooyu yëpp dañ ko war a jàngat njàngat moo xam ne danañ xam ni mu taxawee ak rakam yi niñ taxawee ba yoon wi egg si fii ba ci Cheikh Mouhamadul taxa mi te loolu nag yaakaar naa ne dana weddi tuuma yu bari bu ñu indee loolu ba mu leer dana bari tuuma yu ñu tuumaaloon yoon wi yoo xam ne loolu moo koy weddi waaw loolu nag yaatal ko jot na te am ngeen occasion yaatal ko kon ñi daa bind ci sëriñ bi ak ci yoon wi te li windi bind wérut mën nañoo tënk ca lañ leen tontu ci jamono jamono yi fan fan yii ngeen koy tàmbali ba keroog bis ba. luñ ci mën a génne tasaare ko euh, ci biir réew mi ak bitim réew ñu def ko ndax ba nag ni tuuma yaa ngi am te nañ ko war a weddee ak nañ ko war a yaatalee des na te loolu da ko nuru sangam ba sallallahu alayhi moom ba nag ni dañuy sax di ko weddil rek ak di ko layal te loolu lépp nag lu ko mat la kon nag jàpp naa ne lu fi xaj ci bitim réew waris na ko organiser ba mu xaj fi ndax taalibe yi Sëñ Tuubaa rek lañ bëgg ndigal Cheikh Mahamadul Muntaxa ak ni mu fonke bis bi loolu man xam naa ko ci moom bis moom waxtu wu ne bu ñëwee da ngay yëg ne am na lu mu ci jàpp am na nu mu ko jàppe da koy màggal dëgg kon nag ren bu dee téeméeri at mu wax ne da koy ànd ak yéen loolu mooy da ànd ak yëpp kon murid bu ne fu mu mën ne na xam ne day ànd ak Sëñ Muntaxa ci bis bi man nag li ma jàpp mooy këri Sëñ Tuubaa yëpp kër gu ne da nga ko war a màggal da nga war a organiser fàttaliku ati sëñ bi organiser fa loo xam ne ña jege foofa ndax yaatal gi li tax mu am solo mooy ñëpp mënuñoo ànd ñëw ci pénc ma waaye gox bu ne fi ne mën nañoo tànt invité ña jege foofa xamal leen sëñ bi jàngal leen sëñ bi loolu mooy sa participation ci bis bi hmm? bu ñu ba soxla nag ñi nga xam ne dañ leen war a jëmmal ñoom ñu jóg fekk si leen ànd ak ci liggéey ba waaye loolu jotewut ak kenn ku ne fa nga ne nga nga nga liggéeyal fa sëñ bi ci bis bi loolu jàpp naa ne farata la te kon maa ngi koy ñaan sama bokk yëpp. ndax gone gone laa ci ñoom suñu maa digal kenn waaye daal jàpp naa ne rafetoon na ci ñu fàttaliku téeméeri ati sëñ bi gox bu ne yëngal ko ba mu yëngu ba ñu xam ne nag téeméeri ati tey la euh, sëriñ bi lim fi nekke lépp lii la fi nekkee woon. bi mu nu wonee gannaaw it Cheikh Moustapha nii nii la ko wuutoo nii la ànd ak i rakkam ba tey jii suñ mën taxa yor yoon wi loolu tënk ko ba ñëpp xam ku ko xamutoon xam ko ku ko xamoon ñu fàttaliku ko loolu jàpp naa ne bokk na ci liggéey bi li ci ëpp solo kon nag. man ci turu sëriñ Seex nga xam ne ci turu njabootu sëriñ Soy bu gépp ci laay waxee te sañ jël engagement fuñ ñu ci féetale ak nu ngeen ko bëggee pare nañ jekk nañ ngir ànd ko yéen ndax màggal gi du màggalu kër màggalu yoon wi la bu ñu màggalu Darou Khoudoss bu ñu màggalu sëriñ Jiw sëriñ màggalu yoon wi la <coughs> Cheikh ko woote ngir yoon wépp ah bis boobu yoon wépp yoon wépp ko yëgandoo woon bu exé di yone bu ko yëgandoo waaw ah, sëñ Touba ñëw na tuba mom mom mom day lu rëy rëy rëy kon nak la jël sama dagu sa kanal bu ñag ci bis bar buñ ci àggee rek luma ci ak wér may rek dan inshallah taala señ bar ana nga légui na commission bi sama ñaari doomi señ bar ak señ Modu Mustafa laa ci boole fu ngeen soxla yoni leen lu ngeen soxla def lo leen ñu ànd ci commission bu leen amatu jot nak bu leen def dara lu ne ci ne ci liggey bobu ba kéro ba kéro <laughs> sëñ baara moom dana ñëw <laughs> dana ñëw daa leen yebal ñoom ànd ci liggéey bi bokk ci commission bi lu ñuy def rek def loolu leen ko ba keroog liggéey bi àgg incha kon nag ngi leen di sant bu baax baax li ak yëg la li ñuy wax li ma Cheikh Cheikh Lamine kër bi ci xilaafa gi man na ko mbàkkee bokk nañ ci te boole nga nu ci <laughs> bokk nañ ci te boole nga nu ci ndeysaan waaye lii itam bok nañ ci te boole ngeen nu ci kon nag na ngeen xam rek ni ngeen ko bëggee ni ngeen ciy ànd ko génn ci lépp incha allahu taala di ñaanin ngeen am ci ngërëmul sëñ Tuubaa ngërëmul Cheikh Moustapha ak njabootu sëñ Tuubaa gépp ndax yoon wépp ngeen koy defal jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu